الحمد لله خم خم حديث bokk ci xam خم خم nga xam ne mooy yi gën a خم خم xam-xami lislaam yi ñuy jàng bokk na ci xam-xam yi nga xam da ngay ñëw rek sukk fi boroomu xam-xam mu jàngal la ko nga door xam ñii li ñuy wax lu mu doon waaye su loolu da nga taxaw fëri ci àll ba dégg borom xam-xam bu wax dara nga jël ko defe ne la nga jàpp yow loola la fekk la muy wax sore nak la ngay wax lool sahihul bukhari Euh, al imam az-Zahabi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci ni géej la ci xam-xamu xadis bi mu fekkee ñi nemmat ay benn benn baat ci saxiixul Buxaari daf ne moom euh, kitaabun jaawazal qantara su fekkoo ne daa am pom boo xam ne daa tiim géej ga wala mu tiim dex ga nee na téere la boo xam ne moom jéggi na dex ga ba jàll ca wàllaa dex kon taxawati di wax ca téere booba nee na moom eh, yàq sa waxtu la dadi nag li nit ñu dul xàmmee mooy boroom xam-xam bi dana génne ab xadiis góor ñey solo xadiis ba muy rijaalul xadiis solokati xadiis ya am ca ñoo xam ne am na ñu leen jëm ci boroom xam-xam yi am ca ñoo xam ne am na ñu leen jam nit ki danañ ko jam ci xadis te loola firiwul ne xadisam yépp wéeruñu nit ki danañ ko jam ci xadiis te fekk ne xadis boobu du moom dong moo ko génne da ko génne ñeneen génne ko kon ki nga xam ne dafa am ñu wax ci moom ne kii nangam a ngi ci moom ak ñàkk mokkal waaye boroom xam-xam bii di Buxaari wala muslim nga xam ne dafa bokk ci seeni charte ne képp ku ñuy jël sab xadis ñuy nattable wér na ak wérut la ñuy nattable wér naag wérut loola dañ ko fay bàyyi lan lañ koy jëlal mooy li wóor ne lu wér la moo tax bokk nañ ci xawaat yi nga xam ne boroom xam-xam yi gën a xóot ci xadis dañ koy wax mooy borom ñaari téere yi bu buxaari ak muslim bépp xadis boo xam ne génneel nañ ko koo xam ne li ñu tudde muxtalit la koo xam ne dafa dem ba jëmmi jamono am lu ko dab loo xam ne tax na nam meloon ci xam-xam melatul noona moo xam daa dem ba mu yàgg ak fàtte dikkal ko wala ak naag wala sax mu doon ku daan sukkandiku ci ay téeréem ba mu yàgg ay téeréem lakk kooka li boroom xam-xam xadis yi di faral di wax mooy lañ xam ne lii ay xadiisam la woon lu jiitu lee di ko dal nañ jël loola xam ne lu baax la li nga xam ne wóor na ne gannaaw bi la ko dal loola nañ ko fa bàyyi liñ xamul nag ndax bu jëkk la wala bu mujj la ba tey ñu ne loola nañ ca taxawlu ba ba ñuy am leneen lu gën a wóor ñu ne la nag bokk na ci règle générale bi nga xam ne moo nekk ci Buxaari ak Muslim mooy képp koo xam ne dafa nekk muxtalit maanaam yëfam dafa jaxasoo duñ ko génneel ab xadis lu dul dañ dafa fekk ne bi ko loolu daataan dal ci la riwaaye woon xadis boobu képp koo xam ne mu dallis la boo xam ne dafa ne an <coughs> an sàngam duñ ko génneel xadis bi moom mu dallis boobu lu dul dafa wér ne moom da koo déggee ci kii mu ko jële ci moom suñ ko doon gàttal daal dañuy wax ne bépp riwaayekat boo xam ne am na gàkk bu ne ca moom suñuy jël xadiisam dañuy jël loo xam ne jotewul dara ak gàkk boobee ko gaar loolu nag ku ko bàyyiwul xel mën ngaa ñëw ci benn sanat ci buxaar yi nga xool gis ca koo xam ne am na wax yu ñu wax ci moom rek nga daal di nekkoon xadis booba wérut fekk mbir ma demewul noonu wala sax nga ne euh, dara wéru ci euh, boroom xam-xam boo xam ne ci taarix lay bind ñu di ko wax docteur Fuad Ziskin mooy boroom téere bi ñuy wax taarix at-turaas al-arabi euh, ca muqaddima téere bi am na wax ju doy waar jum fa wax ci saxiixul Buxaari ba wax ne moom bi mu gisee muallaqaatul Buxaari muy ay ay sanad yoo xam ne Buxaari ci boppam dafa tey tey lu génnee ko noo xam ne jokkaloowul ba àgg moom dafa jàppe loolu inhiyaarul isnaad ci loxoy Buxaari noonu la ko tuddee mu ne daal euh, sanat daal mi ngi màbbe ci loxo Buxaari maa ngi fàttaliku ab risaala bu yàgg baxs boo xam ne defoon naa ko ci loola euh, ba won ko cheikhuna cheikh Hamad al Ansaari euh, mu doon radd boo xam ne defe naa ne mille neuf cent la woon bi ma ko wonee Cheikh Hamad bi mu ko jàngee ba àggal dafa ne ma ah macha allah waaye nag soppil tur wi ndax daa xaw a metti tuuti maa ngi ko tudde woon ishaaru sikkiin fi wajhi ziskiin aw tur la waxoo tàng tuuti mu ne ma da soppi tur wi baax su booba eh, yàlla moo xam fu mu nekk fi mu nekk nii waaye bokkoon na ci yi nga xam ne eh, jotoon nañ ko def ci bunt boobu ci gàttal daal mooy saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim la ca nekk lu wér la ay xadis nag am na ci yoo xam ne chaz la ndax li ñu tudde chaz mooy boo xam ne sanad bi wér na waaye am na beneen bu ko gën a wér loola euh, euh, mi ngi ci biir saxiixul buxaari mu ngi ci biir saxiixu muslim mi ngi ci biir yeneen téere yi ci des ki lay wax ne daal saxiixul buxaari ab téere bu wérut la wala saxiixu muslim téere bu wérut la comme ni ko ñenn ñu di waxee léeg-léeg nga di ko dégg ñooña dafa mel ne lañ la bëgg a wax mooy kon xadis téere bu wér amut maanaam maanaam ab ab bànqaas la ci dàq sunna ci boppam dàq sunna weesuwul nga ne li nekk ci buxaari ak li nekk ci muslim wérut saa bu ñu demee ba wérut la ne ca téere yi ca des ñooy ëpp lu ñu sikki sàkka ci ñoom te ñoom ñooy gën a wére di itam ndax la chaque année ñaari téere yooyu ñooy yi gën a wér ci téere yoo xam ne doomu aadama taalif na ko